xëy laaj ñenn ci askanu Sénégal lan mooy seen xalaat ci concert de casserole bi nga xam ne ñenn ñi ñoo ngi wax ne moo waral accident bi am na benn soxna boo xam ne Aminata Ba la tudd nekk ca marché Thiaroye Gare moom bi ñu ko laajee la mu le nee na concert de casserole bi mën naa indi ay problème mën naa indi ay jafe-jafe nee na ñoom seen yaay dañu leen doon tere ñuy tëgg ay bool ci kër gi ndax jàpp nañ ne loolee mën naa indi sa faana ku ñuy wax Moodu Gueye moom tim ca marché Thiaroye Gare la mu xamle nee na loolee waxi kasaw kasaw la wax ju teguwul fenn la te nit ku gëmul yàlla mooy wax lu ni mel wala muy gëm lu ni mel ndax fii ci Sénégal ay accident yàgg na fi am ma te concert de casserole kenn déggu ko fi ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ku ñuy wax musa Seck di étudiant ci université Gaston Berger nee na lii ab débat boo xam ne ñi nekk ci nguur gi ñoom ñoo ko indi ngir nag bëgg a yàqal ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jege ndax Batolo Joola ba muy tëmb kenn déggu fi concert de casserole keneen ku ñuy wax Mamadou Sy moom nag la mu xamle ci biir journal bi di Rewmi Quotidien ci lu jëm ci concert de yi ak accident yi nee lu jëm ci wàllum dunduk doomu aadama loolee ci yàlla la wékkoo maanaam yàlla moo koy décider mbir yàlla sunu borom morom la yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na coalition Yewwi Askan Wi seen rassemblement bi nga xam ne bëggoon nañu ko amala fukki fan ak ñeent ci weeru janvier dañu ko daal di dàq la ko waral mooy accident bi am ci diwaanu Kaffrine ak seen naataango bi di député Gora Ndoye bokkoon ci Yewwi Askan Wi génn àdduna yéenekaay gi di Walf Fadjri xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall Kader Boye moom àndu ci benn yoon ba pare nee na Ismaïla la boo xam bu danger la ngir Sénégal yéenekaay gi de La Tribune nee na Macky Sall ngir nag bañ ay manifestation am ci lu jëm ci ñetteelu candidature am du def benn déclaration waaye dafay jekk-jekk rek déposé ko ca conseil constitutionnel yéen i kaay gi de Le Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Khalifa Ababacar Sall moom ma ngi waajal élection présidentielle 2024 ndax ab tournée politique la Khalifa Sall di waajal na mu ko mooy mottali yéene yéen i kaay gi di Sud Quotidien xëy ci foire internationale de Dakar nee na foire internationale de Dakar jamono ji dara maanaam foire ñu néew a néew ñoo fay dem kenn mënu fa yegg foofee ca foire internationale de Dakar beneen bi infrastructure ya nga xam ne moo fa nekk la yàlla xam doy na dafa na sax maanaam dara baaxu ci journal bi xëy tënk kàddu yi nee na en tout cas daal li gudd gàtt mooy foire internationale de Dakar jamono ji dee na yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na am na collectif bu juddu boo xam ne dañoo bëgg a soutenir docteur Alfouseynou Gaye mi nga xam ne jamono ji nee na bakkanam ma ngi ci xottu gerte mooy docteur bi defoon certificat médical bi ci lu jëm ci mbiri Adji Sarr Ousmane Sonko yéenekaay gi di enquête nee na jamono ji am na lu ko doy moom premier ministre bi ma ngi ci front yu bëri ginnaaw accident bi am ci diwaanu Kaffrine ak ak mesures yi nga xam ne état bu jël na ko rapport Cour des comptes bi nga xam ne ñoom xamuñu nan la ñuy def ak moom ak lu jëm ci wàllum yokku énergie gi journal bi ñu xëy fekk fa Abdoulaye Cissé nee na Amadou Ba mii nga xam ne moom laay gis jàpp ma ne mooy régler lii nga xam ne crise la ci réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa maître Maysa Babou économiste nee na subvention bi am ci énergie bi ci courant bi loole nag maanaam day tax lépp yokk te waa FMI ñoo ko sant Sénégal yéen a kaay gi de la Tribune nee na lu jëm ci rapport Cour des comptes bi FMI ñoo wax Sénégal nañu ko publier Macky Sall jamono ji nag ma ngi ci guddi ndax suñu te ñàkk a li ko FMI wax te bu ko defee loole nag ay loraange la mën a jural askan wi yéen a gi délibération Pape Demba bi tey njiitul Senelec moom nee yokk gi maanaam ñi seen loxo juutul seen ginnaaw bokkuñu ci maanaam góorgóorlu yee yéen a kaay gi di bés bi xëy diñu xibaar naan ñu carburant bi nga xam ne yokk nañu ko jamono ji nag ci yokk paas yi la jëm journal bi sax nee na ak kalandoo yi ñoom commencé nañoo yokk nañu leen ñu daw 23 ba 5 du matin loolee commencé na yéene kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Momar Souran mi nga xam ne mooy coordonnateur correctif des professionnels transporteurs routiers du Sénégal ñoom nag nee nañu mesure yi nga xam ne gouvernement Sénégal jël na ko ñoom nag danañu si indi ay tontu yoo xam ne yu saf sàpp lay doona ndax nee na bi lu ne xam nañu ko ba mu des l'essentiel yéene yi ne dañuy yepp lu ëpp ñetti tonnes 6 tamit gare routière yi dañu koy tëj bu 23 heures jotee yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ak Le Quotidien Yor Yor ak Le Réveil Quotidien ñu xëy di ñu xibaar naan ñu bi di Cheikh Yérim Seck génn na ab liifara ci njombe ak scandale ak ndëngte yi nga xam ne gouvernement bu Macky def nañu ko ci réew mi yéenekaay gi di Stades nee na Sadio jamono ji ma ci forme ndax nag dina bokk ci match bi nga xam ne moo war a dox diggante Paris germain ak Bayern na ab la